asalaamaaleykum suñ jili prof di dama laa bëgg a laaj ci président Madické noo gisee mbiram daal ak ban xalaat nga ci am ndax yow APR nga nekkoon danga am lu la fa naqari gis nga Madické daal taalibe gi ak lan moo la ci neex ba tax nga bëgg cee dugg daal. ah asalaamaaleykum sëriñ maa ngi lay siyaare bu baax a baax waaw président Madické eh, li ma ci neex mooy taalibe suñ Tuubaa yi ba pare taalibe gi pépp ci àdduna bi xam nañ ne Madické taalibe suñ Tuubaa la man nag donte ne APR laa nekkoon. waaye bu ma nekkee APR bu ma gisee taalibi suñ Tuubaa boo xam ne xam naa li ko ñor bu doon de lu mu tedde dong Sëñ Tuubaa jox na ko waaye li mu bëgg mooy dimbali askan wi ma dikkee loo mën a dem ci tarixa yi tarixa yëpp ma dikkee am ak ñoom jàmm am naa ñoom salaam lu ñu xewle mu dem fa tiraangam fépp bu ñëwoon ma dikkee fu tiraangam dem kooko ay loxoom dagg kenn du desee loxo ndax ñëpp la ay tiraangam dem ci ma dikkee kon gàmm yeeg màggali yeeg gàmm màggali yi am Tuubaa yëpp loxoom mi ngi ciy dem te ba pare nag maanaam li ma ci gën a neex affaire gi ma nekkoon dama ko bàyyi ñëw àndateeg taalibi suñ tubaa bi te nag xam naa ne képp ku ko warale saw carte moo war nga suñ tubaa la suñ abdulaat waxoon dinaa ko wax li tax ma diko ko wax am na ay principe yu war tax ma diko ko wax suñ abdulaat dafa waxoon ne maanaam képp koo xam ne maanaam sa ñooñ la bokk ba pare maanaam li li bëgg ñi koy ñi war ko koo jox rek lañ ko jox mooy réew mi nañ ko jox réew mi taalibi murid yëpp nañ jëli seen carte déglu ma ñi ak kurul nañ ko jox nañ ko jox réew mi ndax ku dul murit ndax man toog naa tey jii pikin am ñu ne ma ñun duñ ay murit waaye ma dikk la ñu woote ngir lan ngir réew mi ñor na ko te mboolem tarixa yëpp fexe na ba téye leen jàpp leen ngir jikkoom boo demee ndar tey jii ndar gépp ñi xam ne lu baax ñor na leen ànd moom kon boog ngeen xam ne taalibi Sëriñ Tuubaa yëpp nañ génne seen carte yi ndax yar ji ak jikko ji ñëpp xam nañ ko ci Madické te boo ko gis taalibi Sëriñ Tuubaa rek ngay xool ci moom te taalibi rek fu mën dem fu ne mën na faa représenté Sëriñ Tuubaa mosu ko dégg muy wax safaan du lu ko waaye wax mën na daa jégal ngir lan xam ne ab sëriñam da daan jégal muy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuulullaahi